22. waaw Bercy moom xam nga grand moment la grand moment la grand bal grand moment la au de la même du spectacle nit ñi dañ fay daggee xam nga bari nañu ay compatriotes wala ay africains ak nit ñu bëgg Afrique aussi yu nekk foofu ci Europe dañuy daggee donc dagge bi am na ci importance trop au de la même du show euh, da gis ne que aussi ñun. Euh, super Étoile euh, dañoo am histoire ak Bercy salle boobu ndax euh, Jacques Higelin chanteur français yàlla na ko yàlla yërëm moo ñu fa njëkk a invité ñuy def première partie durant un mois mu amoon fay spectacle ñun ak Mori Kanté donc foo dëkk un mois di ko dund ak yi ci topp yëpp ba grand bal bi ñëw donc place bu ñu miin la saa ñu fa demee d'ailleurs dañuy xàmmee yenn place yeeg yooyu dañuy vraiment gis euh, fi ñu dañuy identifier wu rapidement donc euh, salle bu ñu xam la salle bu ñu miin la et moment bu am importance la Bercy aussi moom mooy taaral Afrique c'est-à-dire Afrique dafa yàgg am euh, image wu voilà ñuy wane moo gën a yu gën a metti la ñuy gën a wane nag Bercy nag c'est un moment boo xam ne da gis nit ñi sañsee solu ba jekk ñëw def fête amul histoire ñëpp ñibbi seen kër kooku tamit image bu baax la pour Afrique et pour Sénégal donc daal euh, moment bu fort la bettuma euh, nit ñi vraiment dégg ko rek daw Euh, di wuti billet yi di euh, réserver et tout parce que bon je pense que ne salle bi lu mu yaatu yaatu yaatu yaatu xat na ci ñi nga xam ne ñëpp ñoo bëgg a fekkee événement bi événement bu mag la ñu ngi koy préparer aussi préparation bi nag ay concert yu bari la aussi ay yoon yu bare dañ fi dem Amérique diggante bi dañ fi ñëw fii tëgg dañuy tëgg ci Afrique et tout yu bare euh, mu ngi si diggante fii ak bersi donc je suis content que tey moo nekk lancement promo bi ah di leen si baaxee aussi chanson grand bal bi di leen si baaxee lépp loo xam ne que dafa mooy mouvement bi jëm Bercy kontaan si trop euh, am si yéene bu rafet toujours ndax répertoire super étoile moom ñu ci bare ci Bercy lay gën a génnaatee donc euh, dinañ ci def attention bu baax a baax a baax pour béggal leen pour que li nga xam ne que moom ngeen di bëgg ci répertoire bi ngeen fekk ko fa spectacle bu mucc ayib. comme ni ngi ko euh, tàmmee di yéene di def ah mais comme damay wax toujours aussi spectacle bi c'est c'est vous et c'est nous donc spectacle balaa muy dox public bi ak groupe bi nekk en symbiose te loolu moom musa xew be si ñu ngi koy yaakaaraat bi yoon ah malgré situation yu ñu jóge yëpp muy pandémie bi ak difficulté yi am léegi actuellement avec la guerre et tout vraiment ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ceeg jàmm ah ñu ñëw feetu wane encore suñu bopp bégalante et puis avancé loolu moom mooy euh, histoire du Grand Bal euh, bu ñu ko doon wax tey jii ñu bare mën nañ ci témoigner ñu bare bare bare bare bare ñoo xam ne ñoom ñoo ko sos ñu ciy liggéey dañuy gis orchestre bi rek mais ci toute une équipe ñoom ñoo ciy liggéey bii nag particularité bi moom mooy suñu partenaires yi nga xam ne ñoo nekk Europe ñun ñoo ko co-organiser ñun pàcc bu ñu ci daan jël moo daan ëpp doole mais bi yoon ñoom ñoo jël parti bi gën a euh, ëpp doole moo tax bon boo gisee sur les tickets toutes les choses comme ça ñoom ñooy gën a intervenir waaye ñu ngi leen di bàyyi xel di leen wax li nga xam ne moom mooy habitude suñu public aussi permettre leen ñu jot ci billets yi jot ci place yi mën a ñëw fekkee parce que aussi des fois euh, foofu dafa am une certaine organisation boo xam ne des fois du toucher suñu milieu yi donc je tiens à ce que quand même ñu toucher suñu milieu yi permettre leen ñu am ay billets et tout ndax du ñëpp ñoo mën a réserver via la FNAC wala door yooyu donc voilà euh, qu'est-ce que je voulais dire ñaan yàlla yegg fa ak jàmm bu ñu fa yeggee jàmm rek bégal leen comme ni ñu ko daan defee ah bégal euh, sénégalais yëpp bégal africains yëpp bégal européens yi ah dawal musique bi la musique n'a pas de frontière comme ni nga ko yàgg a waxee donc c'est un moment très très important Pape Cheikh vraiment maa ngi si kontaan tu vois tey jii nga xam ne que moom mooy lancement bi mhm. programme bi pour bés yi ñu jëm ci 18 juin kon nag À bientôt. Voilà. À très bientôt. Je suis très